RFM matin 7h40 sunu gan euh, maître Massokhna Kane salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi nuyu la ji Ndiogou Diène itam yaa jiite SOS consommateur benn ci mbootaay yi ne ci réew mi tey sàmmal nit ñi seen ak ak seen yelleef ci li ñuy jëfandikoo muy ñam baa leneen courant bi nag la ñuy waxtaanee ndax lii coow. te tax ay association jóg sax ngir xeex ko ñu ne mooy yokkute gi kilifa yi dogal euh, ci euh, facture courant yi kilifa yi nee nañ euh, looloo jaadu ndax euh, la ca état bi daan dugal ci xaalis ngir bañ mu yokk état bi àttanutu ko gars yi ñu ne déet loolu jaaduwul ndax euh, bu dee pétrole bi ñuy coow naan dafa seer ci àdduna li Senelec di jëfandikoo ci courant du pétrole baa ci ëpp kon yokkute gi jaaduwul SOS consommateur gi nga jiite nu mu ko gisee. waaw ni ñu ko gisee mooy il faut ñu xam ne ñun depuis 2002 ñu ngi suivre question yooyu. te dañ ciy documenté wu duñ jékki-jékki rek tëb di wax dama dégg ci suba ministre Makhtar Cissé mu wax wax joo xam ne ñi vraiment tàmm ñu dégg loolu ci moom parce que discours bi mu wax ce matin euh, c'est pas un discours de ministre c'est vraiment pas digne d'un ministre et ça nous surprend de sa part am na droit nag euh, soutenir euh, directeur euh, général Sénélec mais amul droit saaga askan wi saaga intelligence askan wi comme ni mu ko waxee il n'a pas le droit d'insulter l'intelligence euh, des citoyens euh, en disant entre autres que état bi euh, n'est pas détecteur de mensonges bu ko neexee mais l'état utilise à travers des sociétés comme ay Sénélec ak yooyu des mensonges d'état te loolu mën nañ ko démontrer parce que directeur général bi Euh, argument yi mu servir je salue son courage au passage parce que il est monté au front euh, donc maa ngi euh, koy maa ngi rafetlu li mu enfin ñëw expliquer askan wi mais ça a été laborieux d'abord mais boo dégloo argument yi mu yëpp boo ko épluché comme ni ma ko defee dans la presse à travers tous les comptes rendus de presse ak ni mu ko waxee ci télé bi ak rajo bi argument yi mu utilisé yëpp amu ci benn boo xam ne bii fondé la infondé parce que dafa njëkk wax ni euh, benn que Senelec dafa am contrat de performance ak état bi et que pour mu mën a respecter contrat de performance boobu il faut mu am ay ressources financière yu doy xaalis bu doy d'accord maintenant daf ni cour pétrole cour mondiaux yi moom moo tax dépense su Senelec yi yokku et que yi bu yokkoo dafay entraîner perte pour moom ma koy wax ni cours mondiaux yi li mu ci wax amul boo duggee ci internet y a des sites officiels boo analyser cours mondiaux yi nga xool historique bi maanaam li passé parce que wax na 2016 ni 2016 dëkk yu bari yi wër Sénégal ak yooyu dañu amoon ay problème ndax cours mondiaux yi c'est faux en 2016 cours bi dem na ba àgg moins de 30 dollars di remonter petit à petit di def ay pic léeg mu wàcc léeg mu yéeg loolu mooy cours mondiaux te bu ñu la joxee comme par exemple ñu ne la actuellement le cours mondial boo ko xoolee ci internet ça tourne entre cinquante huit et soixante deux lay barier day yéeg di wàcc te yooyu c'est pour le pétrole qui doit être au mois de janvier donc c'est même pas actuel. gënoon na fee cher sax. gënoon na fee cher mais ñun depuis 2014 cours bari bi dafay wàcc ba nga xam ne ñun dañu ma bindoon état bi ni ko. il faut nga wàññi essence bi ak électricité bi au moins de 30 pour cent loolu la leen waxoon parce que bu ñu doon appliquer la vérité des prix bi ñu waxoon euh, dana wàññeeku bu baax a baax a baax mais duñ ko appliquer ñun dañu leen waxoon na ngeen créer benn fonds de péréquation et de stabilisation des prix xam ni bu cours yi yéegee ngeen jël ci fonds boobu compenser bañ a yokk prix yi bu fekkee cours bi dafa wàcc ba ngeen am bénéfice fonds bi alimenté wu xaalis boobu réserve lay doon pour bu amee euh, kii donc cours mondiaux yooyu ñuy accuser amul c'est un argument boo xam ni ça ne tient pas la route bu ñu ko analyser dinañ gis que argument boobu taxaw. Mhm. mais mais moom euh, maître yaa ngi wax wàllum euh, vérité des prix parce que nguur gi nee nañ dafa antantul li nga xam ne moom la doon subventionné ci euh, courant bi nee nañ sax at yi le business ba léegi trois cent seize milliards dugal nañ ko ci tax ba directeur bi nee na bu ñu toppoon sax loolu yokk gi sax nekk ay six pour cent dix pour cent mais vingt six pour cent lañ nekk yow est-ce que loolu gëm nga ko. gëmuma ko parce que mënuñu ko acté mënuñu ko prouver dañuy wax rek ay chiffres yu ñuy avancé la. indee ci benn firnde. Euh, may wax ne loolu ñu wax ñoom dañu wax ne dañu xool dañu analyser euh, perte yi nga xam ne kuuru pétrole bi tax nañu am ko Sénélec am ko ci ay dépenses am perte yooyu nee nañu dañu xool depuis le premier octobre ñu xool trimestre bii démarré premier octobre deux mille dix-neuf ñu nekk danañ perte douze milliards et quelques douze milliards et quelques yooyu ça fait vingt six virgule trois pour cent ñu ne état bi. bi ko commission de régulation Sénélec bi mu ko waxee commission commission wax ko état bi ni ko est que yow da ngay compenser wala ndax dañuy appliquer euh, vingt six pour cent yi euh, comme augmentation nee na état bi d'accord ni moom day jël dix milliards yi bàyyi ñu ñun ak deux milliards ñu ne moom mooy dix milliards yi perte bi vingt six pour cent la vingt six virgule trois pour cent bu état bi jëlee vingt pour cent population yi jël six pour mais boo jëlee sa machine ak calculer nga def nga xool vingt milliards euh, du moins dix milliards ñu ne mooy vingt pour cent ci parti que six milliards yi euh, deux milliards yi ñuy bàyyee mooy six pour cent c'est faux c'est archi faux totalement faux boo jëlee sa machine léegi xëy na nag dañu juum ci seeni chiffres je leur accorde le bénéfice sur ça peut-être dañu juum mais boo jëlee sa machine élève bi gën a tuuti bu jëlee machine am xool ni li ñu wax ni douze milliards yi euh, dix milliards bu ñu ko jëlee mooy vingt pour cent yi 6 pour cent yi di 2 milliards yi c'est faux arithmétiquement mathématiquement c'est faux donc argument boobu euh, taxawul parce que dañ koy wax rek alors bu ñu nee ñoom dañuy perte 12 milliards euh, que daan nañ def ay subventions que hausse bi mënul ñàkk am loolu euh, du dëgg. mais dama bëggoon ñu ñu del si parce que yaa ngi tudd comité de régulation du secteur de l'électricité ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy sanc Euh, njëgu facture yi ñoom ñoo jox euh, sañ-sañ Senelec mu mu yokk yëf fii waaye commission boobu ci document boo xam ne sax bindoon na ko ma ngay wane ni euh, li Sénégal Senelec fi Senelec di tànqee courant du ci pétrole bi la ëppee ndax mi ngi ci énergie solaire rek énergie éolienne di ngelaw li nga xam ni mooy mayee courant kon document boobu li muy wane ni mooy pétrole bi Senelec mooy ne moom moo tax mu yokk yëf fii 70 pour de ses mu ngi noonu kon euh, euh, yokk gi dafa mel ni euh, ñi ko ñenn ñi définiré dafa jaaduwul bu dee pétrole rek la ñuy wax. loolu amul alibi la rek. loolu lay la lay boo xam ne bi nag layu ko daanu ci saret la parce que yomb naa vérifier dépense su Sénélec yi dafa ëpp te dina dinaa ci wax tuuti mais li ñu wax ne que yokk bi mënul ñàkk loolu loolu taxawul parce que perte boobu prouvé ko ay ay prévision la c'est-à-dire des prévisions de dépenses ak ay prévisions de perte ci la ñu de de parce que dañu la wax premier trimestre bi nga xam moo démarré premier octobre mais commission de régulation boobu amalul benn njëriñ askan wi or ci mission yi la défense des intérêts de consommateurs ci la bokk mais ñun dañu gis ni commission bi depuis ay at a ngi ay anciens fonctionnaires ñoo koy ñoo koy diriger ay anciens fonctionnaires du ministère wala des anciens de la Sénélec ñoom li ñu mës a def toujours mooy li Sénélec bëgg wala li état bi bëgg mais d'ailleurs seen décision bii ñu mujj jël nii xam ni le 19 novembre lañ ko jël le même jour bi leen Sénélec saisiré le 19 novembre ñu jël ko décision wu cinq pages boo xam benn page bi visa la ñaari page yi c'est l'exposé des benn page boo xam ne analise la nee nañu ak benn page boo xam ne tarif yi lañ ci def may wax askan wi ni woyefal ci la bokk alors seen décision boobu doo ci gis benn article bu la wax parce que loolu moo leen démentir bu fekkoon dañu def ci seen décision bi benn article boo xam day wane ni douze milliards yi ñuy wax dix milliards état bi jël na ko day jël benn article def ni dix milliards yi bu ne bu ne moom valide na perte douze milliards yi day bind benn article wax ni dix milliards yi sera compensé par l'état comme ni mu koy def ci décision mi yi passé yépp ba pare ni deux milliards yi nag mooy hausse bi nga xam ne moom la population bi war a ki loolu moo waroon nekk ci décision décision bi baaxul te ñun nañ seet yan moyen la ñu mën a am pour attaquer décision boobu parce que c'est pas fondé jaaduwul donc loolu mooy li nga xam ne décision bi moom moo leen moom moo leen euh, sànq parce que décision bi dafa waroon retracer douze milliards yi ñuy wax le état bi li muy compenser ak li nga xam ne askan wi ñoo ko war a supporter mais encore une fois euh, bu fekkoon ni dañu appliquer vérité des faits diminution lay doon mais du doon hausse Euh, ñun nag dañu gis ne. Euh, et dañu wax lu garaaw mais tamit subvention di subventionné aussi est-ce que doo dem ba benn instant nga xaw a toqi parce que 316 milliards quand même jër ñetti at nekk na loo xamante ni ci gafa nguur gi nga loolu nee la ay wax la boo xam ne amul benn document bu ko firnde nañu génne document yuy firnde parce que wax rek yomb na mais boo waxee da ngay génne document bu fur bu ko kii sànq maa ngi dégg euh, aar li ñu bokk di laaj liste abonné yi ñu wax 611 000 abonnés yi ñu wax ni ko ñoom bokkuñu ci yokk bi loolu aussi amul amul du dëgg parce que du ñu génne liste boobu ñu leen ko wax du ñu ko génne jamais. or 611000 moom am nañu jàpp daal bëri na. waaw mais loolu loolu ay wax la. parce que bu ñu nee million cent et quelques. abonnés abonnés. Euh, euh, six cent onze mille yi bokkuñu ci yokk bi loolu wax la dañu war a wax ne tranche sa première tranche de consommation ak koo mënti doon parce que ñoom mënuñu xam ban ménage moo am revenu bu bu bu mag ak revenu bu ndaw puisque ñëppay consommer courant boo jëloon dix mille francs tey nga jënd euh, kii courant par exemple nga yore woyofal nga jënd courant première tranche bi danañ la ko jaaye danañ la jox peut-être cent trois mais boo boo paree ci loolu boo jëndaatee dix mille francs duñ la jox dañ lay jox quatre vingt an hmm. kilowatts ainsi de suite donc dañu waroon ni première tranche yi nga xam ne mooy kii bi loolu duñ ko impacté ci seen tarif mais amuñu droit wax te loolu ay wax yu taxawul la amuñu droit taxaw naan 611 abonnés nañ ko publier liste bi moi je les mets à défi de publier cette liste parce que elle n'existe pas. mënuñu wax tamit ñoom tamit tëbuñu tëb rek euh, bind peut-être que si des arguments techniques sur la base d' arguments techniques lañ ko defee seen i calcul mënuñu tëb rek quand même ne euh, tel nombre 611 000 abonnés euh, du leen laal tëbuñu tëb rek wax ko. non non nañu génne preuve yi ñun ay firnde rek la ñuy laaj. ñun waxuñu ni que dañu nii nañu génne preuve parce que amuñu preuve ñun gëm nañ ni ay ay lay la ay lay dong la nag li ñu wax yépp que 611 203 à faible revenu sont épargnés faible revenu mooy kan ban critère ñoom la ñu am pour définir yan ménage ñoo nekk faible revenu u pas amul dañu war a wax tranche yi nga xam ne c'est épargné c'est la première tranche et ça va jusqu'à 150 euh, kilowatts 150 kilowatts boo amee juróomi lampe ak benn télévision ak benn frigo jeex na da nga koy dépassé te ñëpp am nañu équipement yooyu. Mhm. donc bu ñu waxee loolu wax ni trois cent mille euh, c'est-à-dire vingt six pour cent yi hausse su deux pour cent loolu aussi amul nañu bàyyi di wax lu dul dëgg loolu dafa grave man toujours damay wax ni nguur dafa war toujours lu mu metti metti wax dëgg loolu la euh, Rowling doon def et c'était un exemple donc dañuy wax. ni que lu mu métti métti nañu wax nit ñu dëgg mais bu ñu lay lay yoo xam ni boo ko analyser di nga mën a démontrer ni lay amul moi je lance un défi aussi bien au ministre puisque mi ngi wax ay détecteur de mensonges ak ay yu kenn xamul je lance un défi au ministre ou au directeur général de soutenir un débat contradictoire sur ça amul Sénélec problème yi ci nekk mooy Sénélec gouffre à milliards la Sénélec dépense yi ci nekk déjà charge yi déjà personnel bi du ñu fay loolu ñun dinañ ci bind président de la république parce que employé Sénélec yi dañu war a fay même tarif que ñun li ñuy fay ni mu méttee loolu la ñu war a fay maintenant Sénélec am na droit jox leen. problème boobu nag en interne xëy na mooy gàllankoor Sénélec mooy charge yi. mais bien sûr charge yi la charge moo moo diis. charge yi la et dafa am lu xew. te mën nañ euh, ci sa sa gis-gis war a war la mën a woyofal ay dépenses am euh, wàññi charge am non. waxoon nañ ci dans le passé que danañ wàññi chaque année lu mat trois milliards defuñu ko. bi ci tegu mooy Sénélec dañu def ay études en 2009 yoo xam ni c'est des cabinets internationaux qui ont fait ces études mu coûté Sénégal ay milliards études yooyu plus de deux milliards études yooyu études yi dafa wax ne Sénélec dañ ko war a éclater en trois structures yoo xam ni benn holding moo leen di coiffé benn société buy def production benn buy def transport ak benn buy def distribution comme ni ñu def ci ndox e, loolu e. mooy mën a tax ñu mën ko gérer correctement mais à l'époque leur commissaire au compte. loolu bañ koy def euh, léegi mu mat fukki at. mais euh, depuis jàngat googu non depuis 2009 lañ ko arrêté woon ba ministre bi def agenda ni les adjudications sont en cours que dana démarrer début 2010. c'était avec Samuel Sarr jamono jooju. document yaa ngi fi mois mois même j'ai les documents te documents yi bu ngeen seetee nag am na au ministère mais lu tax defuñu loolu parce que buñ ko defoon nga ni dépenses yi ñuy wax ni dafa ëpp dootul am te nit ñi danañ gën a fay moins cher le courant mais defuñu ko lu tax defuñu dañuy laaj lu tax depuis 2010 depuis 9 ans euh, loolu ñu waxoon ni dañ koy éclater pour assainir ko pour nit ñi mën a supporter coût yi et tout ça lu tax defuñu ko ba léegi état bi nañu tontu ci loolu lu tax defuñu ko lu tax ñuy dem di wuti ay milliards ay compensation yu kenn xamul toujours pour mettre dans la Sénélec en tout cas euh, emploier yi ñun on n'a rien contre le personnel mais dañu war a fay courant loolu mooy égalité loolu mooy équité dañu war a fay Sénélec nag bu ko neexee mu rembourser leen à titre d'indemnité ou d'avantage en nature moo xam mais bu ñu wax ni comme li directeur bi di wax naan voilà ku nekk kër ga ngay liggéey da nga fay am ay avantage ki non ñoom ñoom toll nañ ci daanaka. ñetti junni ñetti junni lu teg 2950. 2950 employés il y a le directeur il y a un mmh. directeur général il y a un secrétaire général il y a une dizaine ou une quinzaine de directeurs plus des chefs de service des chefs de division et cetera c'est trop lourd la Sénélec est un monstre qu'on ne peut pas gérer. yàgg nañ leen ko wax te ñoom xam nañ ko te étude yooyu mi ngi fi man bu ñu bëggee mun naa génne yooyu étude ak agenda bi ministre bi defoon loolu rek moo ñu mën a sauver ci Senelec sinon tout le temps dafay am ay augmentation mais état bi aussi est-ce que amul pas responsabilité ci situation parce que bu ñu demee ba naan état bi yore na leen deux cent cinquante milliards ci wàllum bor loolu tamit kër goo ko yoreel dafa am fu muy répercussion. ba nga xamante ne day euh, nasaxal euh, kër gi. waaw état bi euh, bu leen amelee ay bor état bi ñëpp ameel bor demal ci hôpitaux yi. état bi ñëpp la ameel bor mais li ñu war a def mooy éclater Senelec il faut que loolu études yooyu ñu defoon fay ci ay milliards ba jël décision ni dañ koy appliquer lu tax boobu 2009 ba léegi appliqué wuñ ko ñun loolu la ñuy laaj d'abord nañu éclater Senelec tant que defuñu. mais est-ce que coow li coow li itam. Euh, loolu xam naa li njóogu di laaj nii euh, Senelec euh, état bi da koy mbubboo est-ce que coolu coolu di Macky Sall dëkk bi amul xaalis ñu ne euh, xaaral nu xool nu gën a mën a ronqee xaalisu Sénégalais rek jaaree ko ci lu ci mel ne ay Senelec ak yeneen ndax boo xoolee taxawaayu état bi fi ñu toll nii ci wàllu ay lempoog ay lu ne fu ne mi ngi koy jéem a wuti xaalis liñ doon bañ ñoom di dégg fa nii yëpp naan leen nguur gi amul xaalis amul xaalis lii mën na ko findeel ci ne nu ne ni nga koy def di indi ay yokk ak ñoom seen. en tout cas koppartu la état bi di def actuellement à travers aussi am yëpp dañ ko wax ñun on est entre nous les sénégalais naka la ñuy yokk essence bi y a pas longtemps yokk ciment bi yokk fer bi yokk mburu bi euh, léegi ñu yokk électricité yokk frais de justice yi en catimini loolu il faut que ça soit clair en catimini ils ont pris une décision parce que le personnel dañu war a jox personnel bi ay avantages mënuñu leen ko jox ñu créer benn fonds boo xam ne bii décret bi ñemewuñ ko sax publier créer benn fonds mais c'est benn fonds boo xam ne ñun justiciable yi ñun ñooy fay pour alimenter fonds boobu pour ñu mën a jox. ah bon ci naka loolu loolu waxuñu ko loolu waxuñu ko ensuite. yokk nañu créé nañu ay plaque d'immatriculation loolu information la ci wàllu justice bi fu ñu fu ñu fu ñu def euh, pexe pour jël xaalisu nit ñi ci wutum kayit ak yooyu. voilà booy wut kayit boo demee tu vas payer deux fois plus ou trois fois plus loolu il faut le c'est un fonds qui est créé pour euh, comme fonds yi ñuy def avec la douane et autres. fonds commun loolu la fonds commun. mais ce qu'il faut savoir yokk yi dafa bare comme ni nga ko waxee ñu ngi fi créé ay cartes grises yu bees ay permis yu bees ay plaques d'immatriculation yu bees mais yooyu yëpp charge la ci kaw askan wi. te mhm. te pouvoir d'achat wu askan wi yokkuwul. te loolu loolu mënuñu ko justifier parce que bu ñu waxee c'est pour sécuriser on a donné les marchés à des sociétés étrangères à quel prix la structure des prix des plaques des nouvelles plaques des des des des cartes grises et autres donc secteur yëpp mi ngi am yokk moo tax ñun dañu gëm ni état bi day wut ay niche yoo xam ne am na xaalis comme ni nga wax dañuy dañuy dañuy wut xaalis loolu mais nañ ko wax askan yu mu leer ñun loolu lañ bëgg il faut pas qu'on nous raconte des histoires Sénélec bi yokk bi amul benn fondement amul benn boo ko analyser point par point boo ko documenter di nga gis ni li ñuy wax ci cours pétrole bi amul déjà te ñoom pétrole bi la ñu accusé pour wane ni perte douze milliards perte douze milliards boobu ana trace bi dans la décision de la de la CRSE amul donc ci gàttal euh, secteur yëpp ñu ngi koy yokk. alors douze douze milliards sax à l'échelle d'un état taxu ko ñuy demee bu doon bu doyee lu firndewu la sax. mais problème bi mooy waxuñu la douze milliards yi est que par trimestre rek la wala ndax pour année bi la parce que année bi bu ñu nee douze milliards ci trois mois ci trimestre bi bon année bi ñaata la. ça fait huit milliards. mais hmm. noonu waxtaan bi am na solo jërëjëf maître Massokhna Kane njiital SOS consommateur jaajëf El Hadj Ndiogo gërëm itam mbokk yi ñu topp ci suba léegi ci RFM ak TFM ci RFM matin yéen doog jàmm.